loolu je pense que euh, euh, comme ni ma ko am fu ma ko waxee sànq si benn journaliste lii nga xam ne tey jii moo am muy décision wu dafay am ay impact négatif aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique sur le plan sportif mooy daanaka ñun jaraaf instant yi ñu ngi woon si deuxième place ñu ngi nekkoon si dynamique bu baax tey jii boo jékki-jékki rek arrêté championnat bi hmm, peut-être que léegi compétitivité bi nga xam ne suñu joueur ak équipe moom lañ amoon mën nañ ko perte si trêve bi waaye tamit aussi ñëpp xam nañu fii football sénégal football professionnel waaye aussi club yi aussi xam nañu seen moyens yi aussi ne suivent pas euh, te tey jii buñ ko arrêté tam day tax terewul nga kon ne di fay say joueurs kon ne di am say frais donc d' entraînement parce que entraînement boo def ay frais la mois bi bu jotee te football loo tamit na ngay fay joueurs yi donc loolu yëpp aussi ay ay impact donc yu yu xaw a négatif la daal moo tax sax yenn club yi ñu ngi commencé discuter ak waa fédération wala état bi sax ñu xool naka lañu ñu mënee jàppale club yi ci période bi parce que même bi championnat professionnel bi commencé ba n'avons ñun ñu koy parce que dañ n'a euh, pas assez de soutien vis-à-vis donc de l'État te danaka tay ji euh, dans tous les pays africains ñi démarré championnat professionnel yépp état bi daf lañ jappalé mais donc on espère vraiment que euh, à partir donc de cet épisode là l'État prendra conscience pour aussi nous mën jappalé club parce que club aussi donc sonn nañu léegi kenn xamul que la reprendre peut-être on va reprendre dans un mois peut-être dans deux mois mais le même pour reprendre aussi ça veut dire que le calendrier bi dañ koy changer Ça veut dire que aussi on va jouer encore beaucoup plus donc de de de de de de mois et mois comme nous avons ko on est obligé de faire ces jours accès encadrement.